waaw effectivement ren moom euh, ku ne seetlu na ni moom àdduna bi dafa am euh, lu fi dugg loo xam ni euh, moom moom wan na ñëpp ne man ma man maa leen ëpp doole parce que ku ci nekk ak matuwaay yoo mën a jël fi mu toll gis nga ni boo demee ba ci biir da nga gis ni matuwaay yi doyul kon nag liggéeykat yi mënuñu leen épargner parce que secteur yëpp la laal parce que heure bi comme ni nga ko waxee daan na fekk travailleurs yi di feetu. mais ren talu ñoo feetu parce que liggéeykat yu bëri actuellement jotuñu seen salaire ñii dàq nañu leen ñii liñ leen jox dañoo wàññi seen salaire parce que entreprise yi ñu doon liggéey euh, yoruñu euh, xaalis bu ñu leen mun a fayee donc ça veut dire que actuellement économie réew mi moo moo daanu euh, comme économie àdduna bi yëpp quoi donc année bu particulière la boo xam naa ne xam naa ne liggéeykat yi ko fàtte parce que liggéeykat yu bari fi ñu ñi ngi toog seen kër Euh, ñii liggéeyee tuñ ñi dañ leen wax ñu toog seen kër di liggéey à distance te loolu lépp xam nga ay jafe-jafe la donc vraiment daal ren premier mais bi moom ñëw na ci contexte bu méttee métti naam nag avant sax muy ñëw liggéeykat Sénégal yi moom naka nekk ci naka jekk ci jafe-jafe la nekk. Mhm. waaw loolu moom mooy dëgg. am itam ci wàllum euh, éducation bi ay ndogal yoo xam ne yu bees yu ñu jël. Euh, xam nga ne euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe d'examen yi di war a def BFEM bak wala CFEE ñoom mm. euh, ci li nga xam ne mujjee nañ ko jàpp te xam naa ne jot nga ci mooy le 2 juin la ñu bëgg ñu reprendre li nga xam ne mooy cours yi mm. ana ban appréciation nga am ci boobu la décision nga xam ne jël nañ ko ah man appréciation ma ci njëkk def rek mooy yéen firnde ngeen ci yéen waa Dakar Actu ndaxte le 13 avril

tollooguñ foofu ñun Sénégal pour xale yi di jàng ci ay xarala ci lañ proposé woon ñun kan nañu delloo élèves yi nga xam ñu ci en classe d' examen mu ngi ci seen texte bi bu ngeen ko xoolaatee le treize. ñu ne ñun ñu ngi proposé que élèves CM2 yi ak élèves troisième yi ak élèves terminale yi dañ delluwaat bu ko defee ñu tas leen ci classe yi def ko ay groupe yu ndaw yoo xam si du romb fukki élève wala fukki élève ak ñaar ñu respecté li nga xam ne moom la personnel de santé yi wax donc les mesures barrières et tout. donc ñuy def un dispositif de lavage des mains à l'entrée et à la sortie ba ñoom ñu takk seen masque seen jàngalekat jàng ñu surveiller leen comme groupe yu ndaw la ñu doon te école boo jël duñ fa bari parce que classe d'examen yi ñoo gën a tuuti léegi bañ ko waxee ministère bi da koo ñàkkaloon fayda waaw léegi nag euh, tey ñoom ñoo dem conseil des nit ne loolu lañ bëgg a def ñun d'accord nañ ci parce que ñun proposé nañ ko depuis le treize mais li ñu d'accordul ak ñoom mooy ñuy xaar le

parce que ñun ba ñuy def la proposition ah. allo. est-ce que ñu tàmbali léegi ak fi mbas mi toll ci réew mi. ah mais mbas mi du ñoom nee nañ day yokk sax sax xam nga affaire bi aussi bu ñu naxante man nag da damay wax ne gëw ma yokk bi quoi xam nga man lu ma gëm. mooy nombre de tests yi moo yokk moo tax euh, parce que taux de positivité bi yokkul ñoom dañoo nekkoon ci cent tests par jour. Mhm. di am ay neuf cas ak ay dix cas ak ay onze cas. loolu moo doon moyenne bi bi mbas mi di doog a dugg Sénégal ñu dem ba neex leen ñoom ñu décidé léegi dem à six cent tests dem à sept cent tey ñu ngi ci neuf cent tests il paraît mais c'est normal que <laughs> bu ñu demee neuf cent tests ñu am quatre vingt cas ou soixante dix cas et li ma gëm mooy suñ demoon trois mille tests buñ testé woon sénégalais yi ci quartier yi man gëm naa ne bu ñu doon jël trois mille personnes di leen testé par jour Euh, Sénégal dina dem trop lu mat trois cent cas wala quatre cent cas donc il ne faut pas ñoom ñu yore euh, seen i kii wax ni affaire dafa yokk te teguñu ko ci lu scientifique man li ma gëm mooy test yi moo yokk moo tax cas yi bu ñu bëggee xam cas yi carrément nan la demee nañ test Sénégalais yi nañ dugg def dépistage massif bu defee dépistage massif ci la xam ndax Sénégalais yi comme ñoom nee nañ ñu bëri ñu ngi koy am mais forme forme bénigne la ñuy am mais nañ dugg ci quartier yi ñu testé donc man xamul mooy daal feebar bi moom euh, adduna bi yëpp xam nañ ni encore pour quelque temps dañuy cheminer ak fièvre comme ñom le deux bu ñëw fièvre bi dafay nekk incha allah ñoom ñoo la ko gëna xam motax tax sax ñu ne yeneen élèves yi bu ñëw man japp naa ne xaar la deux bi c'est encore perdre un mois supplémentaire donc li ma gëm mooy dañ ko war a def léegi bu ko defee ñu tas classe yi élèves yeneen yi ñoom xaar pour que ñu bañ a am ay rassemblement ci école yi man loolu laa gëm mooy mesure bu efficace. alors monsieur Mbodj euh, jàpp nga ne année bi mën nañ ko sauver d'autant plus que bu ñu en fin juin Sénégal dañuy dugg ci nawet te xam nga ne la majeure partie école yi nekk ci biir réew abri provisoire lañ nekk et ñi ci gën a bëri dañuy dem béy yaakaar nga ne année bi war nañ ko mën a sauver ci condition yooyu ak abri provisoire yooyu ñuy wax. man de li ma gëm la lay wax. Sénégal bu dee nanguñu revenir sur la décision. bii ñu jëm ni la deux dañuy toogaat beneen weer di bir xale yi bañ a man gëm naa ne loolu suñ ko defee même suñu récupéré année bi ci ay tappale lañ ko récupéré année bi mën nañ ko récupéré mais à condition que ñu jàngi léegi dañuy jàngi léegi ñoom les élèves en parce que comme ni nga ko waxee dafa am ay régions yoo xam ne taw bi mois de mai lay door fin mai dañuy commencé taw donc actuellement man li ma gëm mooy président la république dafa war a changer décision bi wax ne le 2 juin sori na léegi da koy commencé léegi mais classe yi nga xam moom la nar a ubbi le 2 juin ñu ci bëri du ñu mën a kii parce que ca biir ndox ma la leen di fekk incha allah donc man li ma gëm mooy que ni euh, année bi mën nañ ko récupérer mais li gouvernement bi teg man doyuma li ministère éducation teg doyuma parce que ñoom bu dee enseignement à distance bi loolu ñoom ñoo la gën a xam ni non seulement day violer la loi d'orientation day violer la constitution parce que dañuy dañuy boddi ay xale yoo xam dañoo am droit à l'éducation parce que hmm. ñoom amuñu courant seen kër ñoñu da leen di botte mais ensuite lolu dafa amul benn possibilité pour ñum réaliser ko ce programme là d'enseignement à distance kon nak li def moy pour ñu récupérer année bi fokk ñu teel a commencé affaire bi moo tax mun ñu xaar le deux. suñu xaaré le deux xam nga lu ma gëm. Mhm. mooy dañuy valider sen année te contenu du mat manam les xalé yi waroon a du mat lolu nak am nañ ci droit parce que la décision de validation de l'année c'est une décision mhm. politique ci état la nek ci loxo état la nek su ko neexee mu ni jang amul waye man sama année baax na loolu lañ bëgg a def ñoom loolu lañ bëgg def te man jàpp naa ni loolu mhm. baaxul parce que bu ëllëgee lay feeñ